oyofal <laughs> ajo nuyu naa ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñun waxtu yu jotee ñu jox leen yéene kaay yi xëy dëxëñ njóobeen bi nuy naa la bu baax. nuyu naa la maam. li nga sol rafet na tey da ngaa biddanti dangaa biddanti woon. walaay biddanti ma xam nga rek mant bu bu absenté moom a yenn yi dafay tegu sama kaw. waaw waaw waaw donc ko. waaw rek moom moo tax. ñu koy door gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki mool yax a kaay groupe des médias yaa suñu yéen a kaay groupe des médias dafa ñëw ci Karim Meïssa Wade mi nga xam ne euh, mu nekk dañuy waxtaanee ak dellu seen fii ci réewum Sénégal ndax nag dafa mel ni temps yëpp moo nekk actualité dellu si Karim Meïssa Wade ndekete yoo waa Arabie Saoudite ñoom raxas nañ seen loxo ba mu set nee nañu Karim Meïssa Wade joxoon nañ ko paas jox ko yóbbal jox ko sërite ngir mu dellu si fii ci réewum Sénégal waaye eh, kii di président Macky Sall moo ca teg tànkam ne mukk du ca dal du dellu si fii ci réewum Sénégal lu dul dafa nangu la Pape Diop nangu lu dul Karim Meïssa Wade dafa nangu la ndaamal Kajoor nangu maanaam retrouvaille famille libérale bi mu daal di si ñëw bokk xanaa kon nag gannaaw mburu ak soow kon na gloria en téléchargement ngay am lu mu ci manti doon yéen kaay bi samp na aw aw laaj nee na nag euh, euh, Karim Meïssa Wade mi de dellu seen gi kon condition yi moo laal bokk na ca mu nangu li Idrissa sekk nangu nangu li Pape Diop euh, nangu fu mu nekk nag ñu ngay manœuvrer di waxtaan di xool nees mën a def ba Karim Meïssa Wade mën a dellu si waat fii ci réewum Sénégal te nag Karim Meïssa Wade Qatar ga mu nekk lay dicté ay loi fekkee mënul teg tànkam fii ci réew mi da jàppale ne kon connexion am doy na euh, te neex na ba noppi it euh, crédit am bari na illimité. moo ne lay diriger parti bi fii ci réew mi Sénégal moom mooy dicté mooy ay loi am mooy buur di bum mi bu doon groupe WhatsApp ku mu neex mu intégré la ku mu neex nga jékki-jékki gis ne kon may Meïssa Wade vous a retiré donc noonu lay doxale <laughs> fii ci euh, parti bi te à distance la koy la koy defee nag yéen kaay bi ñëw ba tey ci réunion ba nga xam ne. mouvance présidentielle bi dañ ko doon amal xam nga ne président Macky Sall ci week bi dalal na député yi député yu Benno Bokk Yaakaar doon waxtaan ak ñoom sa assemblée nationale waaye ndekete yoo nag la gën a fës sa waxtaan ba coowal aji saar la ak Ousmane Sonko kañ la ñuy tëgg procès national boobee yéenekaay bi euh, dikk na ca réunion mouvance présidentielle bu nekk ca waxtaan wu yëpp euh, foofu lañ sa ëpp lañu si euh, wax fu mu nekk nii nag. ñu jàll euh, ci troisième mandat bi APR ak nag euh, euh, coow li nga xam ne am na ci troisième mandat bi yéen yéenekaay bi dikk na si Antoine Félix Diome craint le pire ndax nag nee ñu diggante fin août ak septembre bee boo ñu xam ne ndox mi dana bari lool xiin taw xiinul taw def naa wolof sax am na lu mu ko tuddee période bi à ah, élage hmm? hmm? période bi amul nu nu ko si nawet bi xiin taw xiinul taw wax set noonu lañu ko tuddee nee nañu bee boo ñu waajal te xam ne ndox mi dana bari lool dana sakkan lool ku yee boo am ku am say bagage yu yàqu bu yee nga takk aj ndax na Antoine Félix Diome nee na phénomène naturel la ce qui veut dire que mënuñu ko téye donc li ñu man moo di rek jël mbir yi wér ko si loxoy euh, yàlla ji donc nag loolu moo tax yéenekaay bi sampaw laaj di tribune di laaj nag Antoine Félix Diome mi lu mu umpale daa bari wala ci dafa xamul askan wi xuus si mbënd mi ana lan la ñuy dund moo tax muy wax ne mbiru phénomène naturel la euh, loolu moom mooy firndee ne kon ñoom ñu ci man euh, bariwul ñu àddu jëmale ba tey ci li nga xam ne moo di euh, les échos les échos dafa ñëw ci retrouvailles famille nee nañ parti démocratique sénégalais ñoom wax ñu retrouvailles waaye fu mu nekk ak njabootam ñooy dem njabootam fu mu nekk nii ñooy gedd dem ndax bu ci mujj rek moo nekkoon Toussaint Manga waaye lu ko jiitu Mayoro fay ak Cheikh Mbacke Dolly ñoom nag euh, ñu ngay taxawal li nga xam ne mooy si soo moytuwul seen parti euh, bopp euh, wala nag lu nga xam ne nii seen ëllëgu politique sa lañ siy dox retrouvaille famille libérale boobee ñoom fu mu nekk ñoom bokkuñu si a fay ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mbacke Bara Dolly mooy bi nekkoon président assemblée nationale groupe liberté démocrate waaw boobu la aussi beneen euh, dolli bi. du dolli sax de Cheikh Mbacke rek. la ñuy wax lañ koy moom moom Cheikh Mbacke rek lañ koy. lañ koy wax ok parfois ñu doon boole ci dolli bi. le vrai journal dafa ñëw ci Aminata Touré fu mu nekk nii moom delluwul gannaaw benn yoon ci assemblée nationale ndax moom ci boppam ah, am na Touré ngay waxal <laughs> a li mu bëgg. Rosa Aminata Touré bi lay tudd bii de Yacine. Eh? Aminata Touré façon Rosa bi bii nu mu tudd. bii Rosa bu tendance la di. deux tons. arc en rafet na. ah rafet na waaw temps yii nag moom am na Touré xaw ma kuy chargé Louga bi. waaw am mooy bi moom la def ci bët yi moom la def ci tuñu. moom laa gis nii ah. ak musóor bi bi. Ah, voilà daa def ko sa couleur. macha macha allah. macha couleur ba def <laughs> na Touré nee na jiite assemblée nationale ragalu ko benn yoon. ndax nag palmarèsam ak CV am may na ko mu toog ci bopp assemblée nationale ndax ay jaar-jaaram fii ci wàllu politique ndomba tànk yi nga xam ne jot nañ ko ko takkal fii ci réew mi gisul kenn ku ko gën a mérité moom mu toog sa pencum euh, ndawi réew ma moom Aminata Touré s'impose noonee la ko le vrai journal daal di waxee le Sénégal hors sec l' se prépare au pire pour la fin août et septembre ndax nag nee ñu taw bi dana bari lool ci diggante fin août ak euh, septembre kon nag le quotidien nee na nguur gi mi ngi nekk ci euh, wàccaay li xool nees mën a def ba gàllankoor yooyee mu daal di euh, wàññeeku tuuti diggante euh, euh, njabootuk APR gi ak parti démocratique sénégalais idylle impossible la ñu wax du mbirum poésie du mbirum wax ju neex ay calcul la lépp ay calcul la ku si nekk xool sa intérêt yéenekaay bi nee na daanaka daal dana xala doy waar loolu wala impossible si mu daal di antu l'état sort les gros moyens loolu la laas quotidien wax ndax nag sa màggal gu Tuubaa gi dañu nekk ci wàccaay li nees ma a def ba ndox mi du fa taga tembe fu nekk nii nag état nee na renforcer seen jumtukaay yi nga xam ne def nañ ko sa Touba ngir nag euh, ndox du fa euh, desandi Karim Meïssa Wade euh, le défi Wade candidature à la présidentielle bu 2024 fu mu nekk nii sa dowaa la nekk ni dicté ay loi am waaye nag baay bi fu mu nekk nii moom moo koy supervisé moom moo koy coacher ndax nag yéenekaay bi nee na bu fekkee Abdoulaye wadd moom mooy coacher doom ji bee boo ñu xam ne ak Abdoulaye Wade niñ ko xamee ak ñoram ci wàllu politique léegi mu tàggoo Ousmane ko ndax nag ay guy ay ay kuy du ñu bokk mbalka ko bëgg moom ab Abdoulaye wadd moom la bëggal doom ji euh, kon nag bu yeboo ñu xam ne léegi mu daajal maa kii di euh, euh, Ousmane Sonko ba noppi it nag daal di xàllal yoon li nga xam ne moom mooy doom ji na ne nee nañ bu ñey di xàllal mbabal doom jaa tax te fu mu nekk nii nag Abdoulaye wadd bëgg-bëggam gi yëpp du lenn lu dul Karim Meïssa Wade dellu ci fii ci réew mi ba noppi samp na dem ci présidentielle yi nga xam ne moo di 2024 affaire suite booti Adji Sarr xam nga ne temps yi dañu yëngal dossier bi Euh, temps yi ñu ngi koy waxtaanee ci lu bari en tout cas waa Pastef dànq nañu fanaana nee nañu lii ñu gis muy raam te buñ ko bàyyee mu dugg si ñag bi bi boo ñu xam ne euh, euh, Ousmane Sonko de 2024 dégg rek la ci yam waaye du nekk candidat ndax nag dossier bi ñu ngi koy yëngal jamono ji te ñoom nag takku nañu taxaw takku nañu taxaw ngir nag loole ñuy waajal mu daal mu bañ a antu yéenekaay bii di source a su ma juumul su a dikk na ci ak soxna Gabriel Gabriel mi nga xam ne moom it daanaka moom mooy euh, bàjjenu euh, euh, Adji Sarr mën naa ko wax noon parce que fu mu nekk nii moom moo nekk ci ginnaawam di ko dooleel di ko taxaw moom Gabriel. def na benn waxtaan wu yaatu séq ko nag ak waa suuf soit nee na moom mbir Adji Sarr Ousmane Sonko neexul ba neex waaye nguurug Sénégal daf ci wane ak lâcheté ak ragal ak tiit gi nga xam ne nii moom la ñu nemmeeku ci nguuru ka Sénégal jëm ci mbiir yi ak jigéen ñi moom dafa jàpp ne jigéen ñëpp nag waaye dafa gis ne si à travers Adji Sarr fii ku fi amee ay jafe-jafe si jigéen ñi bee boo nga xam ne di nga wéetaax sa jafe-jafe ndax nguur gi ñu gis nii euh, euh, euh, parewuñu ngir affronter li nga xam ne moom mooy réalité bi ndax nee na moom bi affaire yi amee dafa dem ci ministre de la femme dem waxaa moom ne ko da ko dimbali ndax nag moom moo jël en charge Adji kon nag jot na mu daal di koy taxaw nee na ministre bi li ko tontu moo di li mu ko tontu lenn dul man mënuma dugg ci yi ndax am njaboot am ay doom nee na ministre bi ci boppam fàtte na moom mooy ministre de la femme fàtte na Adji Sarr ab sénégalaise la citoyenne la fii ci réew mi mais deful lu dul wane na kon dafa ragal ñi mu jàkkaar maanaam fàtte na na kon Adji Sarr ji téewoon ak dimbal donc faw moom mu xam ne ni euh, bu demee ba taxaw naan dama ay jabar dama am ay doom am njaboot moom ministre de la femme loolu lay dafay fi nee ne kon ak ragal mi ngi ci moom ci ñi ñu jàkkaarlool euh, soxna Gabriel moom noonu la gisee nee na nag fii mu nekk nii ñoom ñu bàyyi ba nga xam ne Ousmane Sonko ëpp na leen doole ci wàllu politique ñu bëgg a dellu si waat utiliser dossier Adji Sarr moom nee na bokkul ci yooy soxna Gabriel mii nee na bokk ci yooyu état ba mu waree def deful nekk ba tey jii bëgg a yëngalaat dossier bi teg ci taabul ji moom bi nee na moom bokk ci yooyu ndax dafa bu demee ci ministre bi di wax moom da ko xamal ne que man dama am jabar dama am njaboot maanaam dama jëkkër am ay doom donc moom duggul ci yenn détails yi ñu euh, jàll ci li nga xam ne moo di euh, l'observateur ici on bastonne à mort mooy euh, enquête bi ñu def ci centre de redressement des malades mentaux Euh, des malades mentaux ña nga xam ne euh, centre yi nga xam ne euh, Yacine la wax doo ko dee ma ñëw nga dee ma ko. Ah? bul fàtte moo ngi noonu de mën na bu sama micro ah. <laughs> non boobu dama gisul après su ma ko rombaatee nga wax ma dégg. <laughs> témoignage la ñu def ci centre de redressement yi nee na ni ñu téye ñi nga xam ne ñoom ñooy malades mentaux yi yenn saa yi nañu dóor leen ba nga xam ne dañ fay doxee ñàkk seen bakken euh, yéenekaay bi gëstu bu yaatu la ci def di euh, l'observateur mu di reportage bu am solo l'équilibre des pouvoirs jëm ci assemblée nationale poste yi nga xam ne moom la ñu fa war a joxe euh, ñu nag séddale poste yi bu fekkee nag vice poste vice président la Benno Bokk Yaakaar bu amee ñeent bee boo ñu xam ne Yewwi Wallu dañ am ñeent secrétaire élu Benno Bokk Yaakaar bu amee ñett Yewwi dana am trois questeur Benno Bokk Yaakaar am benn Yewwi am benn commission permanente yi Benno Bokk Yaakaar am juróom-ñaar Yewwi Wallu am juróom-ñaar commission contre yooyu des nag jàppale na ko noonu la ñu koy séddaale xanaa kon cinquante cinquante la donc fu mu nekk nii assemblée nationale cinquante lay doon de si diggante opposition bi ak majorité bi euh, euh, Jean Christophe nee na bu fekkee retrouvaille famille libérale dafa am ci ci 24 heures retrouvaille famille libérale dafa am te nag lu ñu si jublu du lenn du faagaagal Ousmane Sonko bi yeboo ñu xam ne du yomb te Ousmane Sonko instant bi nii mbër la bu nga xam ne bu toll ci digg dooleem te nag daaneel ko du yomb donc nañu xoolaat moom euh, Jean Christophe nekk écrivain la ba noppi nekkoon na ambassadeur fii ci euh, réew euh, Sénégal waa ànd sa laa doon jëm. kon moom ba léegi mu génneegul làmbañam ci Sénégal. waaw moom moom génne na moom génne na Sénégal waaye làmbañ baa ngi des ba léegi. mu ngi wax Sénégal waaw. moom xurfaanu jàmb dama xam lu mu ciy sëqate. Hmm? nañu bàyyi xonk noppi ni ñu génne seen làmbañ ci politique gu Sénégal. ñi nga xam ne ñu ngi lakk rek di avancé. Ah. seen lakk gu metti googu nekk sa ànd. loolu loolu doy ko. kase ànd ak gësëm. Jean Christophe moom moom daa sot rek waaw moom daa soob rek moom ci Sénégal moom quoi. ah sans plus sauf Ruffin. waaw. waaw mais bon il est. <laughs> il est Ruffin la il est il est c' est un bon c' est un c' est un écrivain. ah déedéet du Ruffin la xam nga lu ma jaaxal. waaw bon li mu fi wax nii de gisuma ci lu lu lu extraordinaire lu lu compliqué. loolu day mais xam nga fu problème bi ne pourtant fii am nga ay sénégalais yoo xam ne te parle par exemple des États-Unis français waaye waaye français ci actuellement ci politique du Sénégal boo xam ne diplomate c'est un intellectuel bàyyi leen ko mu wax du bind mukk mukk mukk ci xalaatu boppam ci Sénégal bàyyi leen ko mu wax am na li mu wax lan la wax lan la wax moom li mu wax leer na dafa ne Macky Sall bu dof-dofloo wala mu topp ay nitam ñi ko topp. naan ko defal defal defal. fa muy mujjee du neex ci moom xam nga kooku c'est une lecture peut-être Euh, dafa am regard extérieur ci loo xam ne peut-être xam na ko wala euh, dund na ko ci réewum Sénégal kaay ma xamal la les ambassadeurs là même anciens ambassadeurs am na yenn secret yoo xam ne ñun ñuy toog ci table bi ndaw na ay journalistes ñoom ñoo ko xam amuñu ko. kon baax mais ils auront du mal à faire disparaître. qui veut faire disparaître son li mu lay li mu lay li mu lay wan li mu lay wax ci ay kàddoom nii ci cofeel gi mu la jëmee. safaan baa nekk ci moom kalimatul xaq yu yuridu biha al baatil ay door lay góomale <laughs> ànd ak ñu nekk ci du ñu nekk ci Sénégal ñoom France nañu ko de <laughs> en tout cas yaa yaa ngi ko doon wax sànq. ànd di laajaloon ñu ñu xëy ñu xëy ubbi seen ay robinet amuñu ndox. amuñu ndox ba mu duggee ci loxo waa seen wala ñu taaje boo ne ñun. yaa si ànd ak sa nee day doxam ñaxtu samedi. ndax nag ñoom fu mu nekk dañu bëgg ñi nga xam ne dañ leen jàpp sa Tiwaawan ñu daal leen di bàyyi ba noppi yokkute salaire yi également na law euh, Vox Populi si loolu la ñëw euh, nee nañ bu fekkee ñee samedi la ñu jàpp ñoom euh, Sidiya Ndiaye ñoom nee nañ tey ji lañu ñu koy door 72 heures da ciy bokk doxum ñaxtu bi tey dañu koy amal ñoom collectivité locale yi maire yi sama mbokk yi tey dañuy amal seen seen seen doxu ñaxtu ba noppi teg ci 72 heures yi nga xam ne ni euh, booy ut koyitu juddu duñ la signal boo amee sa néew ñu wutal la permis bu nga xam ne moo war a tax nga suul duñ la ko signal extrait de naissance certificat de mariage ñenn signal ñu dara. ñoom bi li ñu bëgg moo di salaire yi ñoom ñu bañ a nekk béyu sarax yi salaire yi na maase ñoom Sidia Ndiaye ñoom loolu la ñu euh, bëgg fu mu nekk nii moo tax nee nañu tey ji lañu amal seen marché national ba noppi it 72 euh, euh, heures yi nga xam ne dañuy bank seen seen seen yoxo fu mu nekk nii ñoom waa ànd a gësëm nee nañu fii la réew mi toll yaramu màggat foo ca laal day metti mm. waaw forote ka sax taxul mu mu mu mu mu yomb kon Yacine daanaka mën nañ daanaka jeex na ah. dama ah, libération lu mu wax. Libération dafa ñëw ci SAR Senelec Petrosen extirpé du code des euh, marchés xam nga ne nag jëm ci wàllum achat produits pétroliers ak gaziers yi construction d' infrastructures yi ak transport ak distribution de gaz naturel yi nee na waa SAR Sénélec ak Petrosen ñoom nag dañu leen extirpé ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, <laughs> ah, kon fii dafa am ay kii. monsieur communication. ah ay pétrolier dafa am ay pétrolier. Ah. ci plateau bi dafa am ay pétrolier. na ay pétrolier ci ay pétrolier. waaw dafa am ay plateau bi mais ce qui est sur dans cette histoire fait li li li libération di fësal c'est que euh, ñoom duñu soxla di jaar ci euh, ni ko code des marché bi di waxee jaar leen mhm. ci euh, li ñu ko wee ci mën ngeen a jënd waaye boo leen di jënd da ngeen di topp lii di code des marchés mais ñoom dañ leen wax ni boo leen di jënd wala di wuti lii nga xam ne moom mooy ci produits pétroliers yooyu mën nga bañ a jàll ci procédures yi procédures yi nga xam ni code des marchés teg na ko léegi nag loolu nag ça peut être Euh, benn buntu pour yenn ci ay détails mhm. ay ndóobal koppar wala yu mel noonu donc il faut quand même c'est quand même encadré mhm. euh, mais peut-être que dañ na leen xaw a gën a may seen seen jàmm ci wàllu woowu mais borom karaw pokotaan yi borom karaw pokotaan yi Toussaint Mangal moom ñu ah. démissionné eh, Toussaint mel si Odia moom mooy bind quoi mu ngi nii simmi na mayoo te nan mayoo bu muy waaj a sol gis ngeen ban la vert bi Pastef la wala taxaw alors ñu nee nag comme démissionnaire parti ñu ngi gis nag maye bu mu sol nit vert blanc bu taxaw Sénégal wala bu Pastef en man di doon nekkul nii. Aminata Mbengue ah, parce que nee na ko nag moytul de mayo bi nga sol nii. Euh, <laughs> perte de perte poste de député ba euh, lay doon de sa ni ñu koy waxee. sa perte poste de député ba sa perte poste de député ba la. Ticmbay Manga si député la ci liste bu bees bi nii. non non waaye xam nga teguñu ko ci fu mu jegee mën a nekka député. waaw fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko kii dafa sori. dañ jàpp ne bokk na ci li tax mu frustré. mais coach bee nekk na la. <coughs> Abdoulaye la. mu ngi donc coach baa nekk ne Abdoulaye Wade maam Abdoulaye Wade daa nekk ne mooy coach bi attention au but contre son ancien camp. mu ngoog mooy euh, li nga xam ne moo am ci biir parti démocratique sénégalais jamono ji maanaam euh, seen parti bopp ndax nag retrouvaille famille libérale bi nga xam ne moom la ñuy jox moom la ñuy laam-laame jamono ji loolu la Odia andi tey ji actualité bi résumé ko ci li mu koy defee ba bu yàlla sekk sàkk Yacine Seck. aywa Mame Mbaye ñëwoon ñu jàll si xibaar yi ah, ñu waxtaan ci lépp nag 8 euh, heures moo jot passé de 14 minutes nañ jàll ci titre yi léegi ak <laughs> xam nga lu gën a fës ci xibaar yi Antoine Félix Diome moom dañuy wax Antoine Félix Abdoulaye Diome. ah Abdoulaye Diome. Diome Diome voilà. mooy ministre de l'intérieur dafa demoon ci diwaanu Saint-Louis ngir déclencher officiellement wala bokk wan waa Saint-Louis ni leen yéen a ngi ci plan ORSEC bi te noppi naa ngir jàppale leen yokk ay jumtukaay ak ay moyens moom Antoine Félix Abdoulaye Diome dafa itam euh, demale ca Saint-Louis ngir métti lu waale yi nga xam ne am na fa.